mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi amaan bi teg contentement yooyu ñuy suivre sur Kelo foo kon nañ koy defee rek à chaque fois dañuy raxasan ah, gannaaw bañ jógee ci arène national Fallou Ndiaye suñu PDG di ko ñaanal bu baax a baax journée journée bi mu jikkoog jàmm ak salaam ndax wax dëgg yàlla daal moom cat daal xam naa ne moom bu bu liwul day semm xamu nu ko olof di waxee mais nag di ko félicité bu baax a baax moom moor kankan borom kalemale ah, kalemale feccel non man sa bàkk moo man neex quoi Mor Kankanga di ko félicité bu baax a baax mais boo yëmbal ñu koy encourager waaw ndax moom gaynde la def na li mu waroon def rek kon ñu ko waxee rek ci kon Tapha Mbeur bisum ñàkk bu jotee mënoo fexe ba doo ñàkk mais ñun ñi la entouré xam nañ ni champion nga te combat bi dañ cee daj ay coono mais li ñu wax rek incha allah boo amatee combat yàlla na la ci yàlla may ndam ci barki Seydina ne ndax yow gaynde nga te yëmbal nga dëkk te xale bu dëkk yëmbal du ragal Mor Kang nag mere naa ko torop waaye nag ci làmb la bokk ndax moom tamit suma xarit la suma góor la encore une fois rek di ko félicité Mor maa ngi lay nuyu. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Abdou Karim Mbacké fay naa la. waaw maanaam man moom mënuma wax. waaye nag boo gisee tey jii wax dafa jot ndax instant yi xale laa tamit tamit dama nekk ci yoon xam li ma bëgg kon instant yi bëri bi daal samay moroom instant yi doyal naa ci. waaw doyal naa ci. dinañ si ñaata combat nga def. neuf combat neuf victoire. waaw. 2000 euh, xam naa ne boo répee ay 2016 2017. 2016 2017. waaw laa dugg ci làmbu arène. waaw. daan nga mbabat. waaw daan naa waaw booy xool daanaka euh, dëkk ba def naa fa daanaka neuf combats neuf victoire. dëkk ba waaw waaw bëri yëpp bëri dóor la. Ah. waaw waaw. moom ah, naa ko fa moom dégguma fa mu ñël de. Ah. te yàlla na yéex. da nga am maam buy bëre wala da nga am mag buy bëre wala da am sa famille koo xamante ni day bëre. waaw am na sama papa mbër la woon sécurité. sama nijaay la tamit. Ah, boo boo bëree da war a boo bëriwul da loolu dafa leer ak bàyyi góor gi yàlla na ko yàlla xare àjjana yi gën a kawe. ni ñu ngéntee ci xaalisu ci nga bokk. waaw loolu moom dëgg la moom. Ah. loolu moom dëgg la ah. waaw. wax nga ko euh, Bawol da nga faa bëri dégg fa daali kon Dakar lan moo fa indoon danga nga ñëwoon pour liggéey si da nga ñëwoon pour gën a remplir sa contrat. dama ñëwoon si pour liggéey si. waaye bi ma ñëwee dama fekk Tonnerre 2 ak Thiaw Star ak Tafa Ndiane ñu doon ay mag ñu topp seen ginnaaw bu ñuy bëree mbapat ñu ànd ak ñoom. boobu loolu liggéey ambulant boobu noonu ferrailleur laa man ferrailleur laa ba léegi. Euh, bu ñuy dem mbapat terrain bu ñuy dem laa fii nii contact terrain mandé. ma toog di leen seetaan benn un ma toog xam rek combat am ay combat am boobu ñoom laat ñi kooñaa ñi si lañuy ñuy léegi maa leen jox leen ma combat boobu sax entraînement wu ñu jox ma komba ma daan ñu joxaat ma ma daan waaw noonu la làmb noonu noonu laa jaaral jaaral ne bëgg làmb daal si la ñu na ba si yàgg boobu nag maa ngi def ay li ma daanaka gëmuma làmb waaye nag boobu daal. ës naa goo xamante ni maanaam mënu wax lépp. caw na ma bàyyi lépp li ngay def bàyyi ko. ës kooku da nga daan def yëfu booy. waaw dama def yëfu booy. di waaw daanaka sagar bi moom dama ko daan tooyal. waaw dama ko daan tooyal jékki-jékki caw na ma. yow li ma gis ngay bëre. force nga def ko. sagar nga daan tooyal. waaw mu daan naa waaye dama ko bàyyi. gens gi moom daan naa ko def waaye dama ko bàyyi. waa dama daan gens moom. Ah, gens gi moom daan naa ko def. waaye caw dafa jékki-jékki. ci gens nga yemoon. ci gens rek laa yemoon. Ah. waa ban kii nga daan gens ñëw ci gens bi. Hmm? ñëw ci am na bu seg. Ah. am na bu gaynde am na bu kaña. waaw am na bu jinax. ban ban gens waaw yenn saa yi su ma bëggoon a la ba jël nii dëgg gaynde laa jël. gaynde mooy bu fort bi. waaw bu fort bi. gaynde nga xam ne doo ragal dara. nan nga gay euh, doo gay gay waaye nag lu taxaw sa kanam danga koy jël. Ah, léegi bu ban boo daan bu yemamaay bi kañ. kañ su ma bëggoon su ma bëggoon curux curux nii damay jël bu kaña bi. <laughs> yaa. bu kaña bi mooy jurug jurug. bu kaña bi nan lay kay waxuma la dara waaye bu ma tegaa boo tegaawoon fee dara sax bu mu ñëwee damay foog ne gisoo ma dama koy jël. ah te kenn bu ci gën a bu bu ci gën a yem moom naturel bi. Ah. boobu moom garaawul boobu boo koy def sax da sëqat <laughs> waaw boobu moom boo koy def da sëqat ah. doo am dara léegi nag si la ma caaw gisee na ma li ngay def nii baaxul ak Balla ja waaw ñoo ma tete na ma liggéey def baaxul. dafa am ñoo doon ànd ak ñoom te dañ daan yor morso bi di tooy. non waaw ay quelques booy. ñi ma yarool. boobu ñun fi ñu daan tëdd. Mm, daaw ma tëdd si néeg. dañ daan lal nii si gaaraas lañu daan tëdd. dañ daan lal nii genn asamaan si buy taw ñu jóg. am fu nu làqu bu mu si wet. waaw dund naa lu metti léegi jour jour ba nga ko njëkk a bi jour ba nga ko njëkk a kii boobu da doon essayé wala da nga doon xool caf. boobu ñu doon ñam rek. dañ leen ñam ba affaire yi dugal ñu si léegi nag si la ma sama grand Thiaw ak Balla ja nga ma liggéey def yëpp amut solo waa dama la bëgg xamal ne àdduna amut solo góorgóorlu da nga bokk si bokk nga si làmb si laa jëlee lépp tege ko ne xam ne ñii liñ ma wax dëgg la boobu ba léegi moom ba ma doxee seen it ba ma euh, nekkee seen ginnaaw ba léegi waaw avancement rek laa siy jëlee non non non non yooyu yëpp bàyyi naa ko waaw léegi ñu ñëw si li nga xamante ne moom mooy sa premier combat. kan moo ko tëggoon ak ñaata lañ la fay. premier combat arène. premier combat arène jéey moo ko moo ko tëgg. jéey moo tëgg sama huitième sama combat yëpp. jéey moo ko tëgg. léegi sa première sa première tey nga ni da ngay bëree xam nga àdduna télé yi dañ lay wër peut-être site internet yi et tout léegi yow ñaata lañ la fayoon. non loolu moom. sama secret la. mais sax xam nga ñëpp da nga gis ay ñoom Sa Thiès ñi Sa ngi ne première combat am ñu ngi ko fay ñaata 200 xaw ma ñaata mille expliqué xaleem que da ngay gis kenn nga dem jëli benn mbër mu ne la 40 mille. waaw sama nijaay sama nijaay sama premier combat moo ngi ko def 300 mille. 300 waaw moom sama nijaay la moo tax mu jàpp si. waaw moom jiyee waaw. léegi 300 yi nan nga ci def. 300 mille bi ma dikkee man laalu ma ko sax gisuma ko ñoom Thiaw ak ñoom Balla ak euh, ñoom Soxin mafia boobu noonu ñoo ko téye. na ma ñun soxlawuñu trois cent mille yi dencal ma ko bir ma ko dencalee ñoom génn seen xaalis di wëri bagage waaw loolu rek laa si am ba lii may wax ak yow nii du ma gis avance du ma dégg avance du ma dégg reliquat damay euh, damay jékki-jékki rek ñu ne ma xaalis bi temps la nii la maa ngi leen yéen gérer leen lu ngeen def baax na waaw sa premier combat nga bëri daan ndax xam nga en général sa première combat mooy entrée en matière da ngay essayer quoi soit mën naa baax soit mën naa bañ a njëkk bañ a baax ndax am na ñu bari ñoo xam te ni seen premier combat day metti duñu dañuy daanu parce que xamuñu ko mais su premier combat nga daan après nan la def si yow. non sama premier combat bi may bëre boobu defuma defuma kaa ndax boobu dama jóge si ñaari combat yu metti dëkk ba ngoogom waaw daanaka Bécaye Mbaye moo ko répercuté woon. Euh, combat boo xamante nii bi ma koy jël. man soixante quinze kilos la kee doon cent dix kilos. ñëpp naa moor dina dee. fu ma romb ñu ne ma doo daan. bi ma koy jël sama mbokk yi kenn ñemewut moom mii moo ma ko jëlloo Thiaw Star na ma jël ko man lu ñu ci góobi rek gar ko dama daan jóg trois heures du matin bàyyi leen ñoom ñii. ñuy nelaw ma jóg trois heures trois heures du matin yoxosu dem géej man kese damay damay damay entraînement ba six heures damay entraînement bay tudd baatam laa ilaha laa ndax sonn su ma jógee foofu noonu ñëw tëdd nelaw ba dix heures ma dem saal ba bi ma demee li ma gën a marqué ci combat boobu bi ma yeewoo gis mbooloo ma gis paa yi ak maire yi kenn ku ne yor sa kurus kër gi fees dell lu ma togg du doy ma gis cinq cars yi taxaw bi may nekk xale cinq cars taxaw ñu jëm reefan bi mu dugg si bi ñu dugg si géew bi bi nu sumé file sama yaram gën a dawee sama supporter amatuñu confiance ma ma ma defal leen na leen jóg leen kii dama koy rey tamit te loolu laa gëm arbitre soufflé mu dox sama kaw ma xam ne su ma risqué mooy loo su ma su kii benn pas rek moom damay yàb ma daw soñ fal ko son mu daw ma tegal ko siis mu lancer ma deuxième pied bi ma lancer deuxième ma jéggi deuxième pied bi janoog put gi si laa ko dóore dama ko dóore mu bàyyee ko ma daje war ak fët fët maman boobu noonu bii korite la bi tabaski ñaari avance yëpp ma jël leen waaw moo tax bi ma amee premier bi ma amee combat mm, arène sama premier combat tiitu ma ndax bu maa ngi contact ñoom tonnerre 2 ñoom njaaxum ñoom mut séeréer ponkalo yooyu rek laa ngay ñoom morpuy ñoo ngi rek la contactal mm-hmm. waaw Euh, di leen bëggee ah bu baax a baax Siga Dione na maa ngi koy remercier bu baax a baax suma doom day suma xarit nangoo sonn ci man lool bëgg ma lool borom xaalis bu bari borom ensemble yu bari ci man Siga Siga bu tafaatin maa ngi lay ziar nee naa émission bi li mu wax ak li fi Mor di wax yëpp yow laa may émission bi ndax yow suma nit nga El Capo maa ngi lay ziar di ziar képp koo xamante ni rek yaa ngi ci diaspora bi mais Mor xam nga tax ñu xam nga tey. duñu ñëw tëb premier combat mooy lépp ndax mën nañu wax ni moom mooy yaata lépp mhm. dañuy ñëw ci li nga xam te ne moom mooy sa dernier combat yi mhm. avant sa combat ak Boy Yeumbeul mhm. neuf combat nga def mais sa septième combat yàkkan la sama septième combat man ak John Kara la woon John bu géej waaye waaw lan moo taxoon combat boobu noonu yaa ko ciblé woon wala làmb moo leen boole woon non dafa toog sama nijaay xam nga sama kër nijaay lay fréquenté ji ne bëgg naa freiné na Kanka mii jéey na ko Mor Kangre sama jërbaat la mënoo ko freiné te nga bañ bay bàyyi avance boobu noonu mun a jox leen ma rek jéey na ko man de faraluma la waaw ñëpp na ko faraluñu la kër ga daal li naa maire faral. <laughs> maire bi yaay ñoom jéey ko ko faral. waaw mu ne mu ne dinaa ko jël. jéey na ko moom quoi boo si duggee man nga see daanu. ah mu jël ko. mais kan wax loolu. waaw ñoom. ñoom sama Abdou Seen daanaka kooku sama lépp la. waaw kooku sama lépp la ñu ne ko jon ñoom jon Kara yow sunu waay nga sunu lépp nga bul jël combat boobu mu dëgër bopp na dina ko jël ah man tamit bi ma wooyee woo Thiaw ñu wax ko ma ne leen man Thiaw bu nangoo rek pare na waaw ah, si lañu ñu bëree ma daan ko dama ko dama ko dañuy jàppante mu colal ma ma bañ ma di ndax boobu damaa diis mu bëgg a génn saako yi ma xëj ko ba mu ñëw dóor ko ñaari ipilkiil mu siggi ma ma burunglu ko mu burunglu ko mu galgal ma ma daar daldi ko yokk dal ko uh, wër ndombo mu def kat appui ma bàyyi ko après si boo yëmbal ok ah loo sot loo sot loo bu yaraax loo sot waaw bu yaraax ah. waaw combat boobu bu neex bu am tension waaw daanaka combat bu ñëw du ma def tension de xam nga lu ma def tension mbooloo mi nga xamante ni ñoo jóge dëkk ba. waaw man moom rek a ma def tension waaye combat yi moom defuma tension ndax bu caw ak tonnerre mi xoolee rek na ma baax na rek damay jàpp ne ñoom xam nga ñoom yéenewuñu ma lu bon. waaw ndax ñoom buñ ma yéene lu bon buñ ma yéene lu ñoom seen bopp lañ ko yéene. waaw moo tax moo tax lu ñu may jox rek dama leen naa xoolal leen ma bu doyee rek baax na. waaw Jon Kara est que xamoon nga Jon Kara. Lozot. asafurla Lozot est-ce que xamoon nga. xaw ma ko woon. ba ko xaw ma ko woon. damay dégg ñu naan bëri na si komba booy ñaar dolfu bëri na moo bari spécial ba yàgg na bëri def na nii mag la déglu ko. waaw moom mag fop. billaahi moo mag. ko. ma jël ko dal di liggéey. xam tamit mooy loolu. ñu daje ñu daje ñu dajee ay fee mooy Demba Diop. may defar ñu defar sama licence bi. ñu daje man xamuma ko sax ñëw naa ba nuyu ko. bi ma ko nuyoo mu jàpp sama loxo bi nuyu ma. peese ma waaw bi ma peesee ma dox beneen grand bi na ko kii yaa doole. te boobu xamu xamoon la wala xaw ma ko woon. ni ma ko joxee loxo xam naa moo xam nga xam man su ma lay loxo damay oyofal loxo ndax am na ñoo xam ne bëgguñu nga jàpp sa loxo rek bës ko. ndax am na dañuy bës nit. Ah, waaw si laa doxee Sow Fall na ma sa mbër mi ma ree dal di génn boobu xool naa ko si taay man ak moom xool naa ko si gëbërin ñuy dem diñe man ak caaw di ñibbisi si moom Moussa yor jaka ay teemax si ma naan caw mbër mi si ginnaaw rëy na de boobu ni mu toogee moo garaaw ma naan mbër mi si ginnaaw rëy de caw caw na ma est-ce du loosoon ma dawal jakarta bi dawal ba rombal leen mu doon moom ma continuer boobu nag maa ngi maa ngi xalaat ne kii si la toll caw na ma ni mu tooge la waaye nag bi ñu signaturé bi ñu signaturé rek ba mu ba ñu ba ñu ba natante laa xam ne kii maa ko mën. waaw man gis nga nii nga gis nii bu nu taxawee ma xam ni ma lay daane su ma jàkkaarloog yow suñu taxawee rek ma xam ni ma lay daane. da boo xamante ni yow comme par exemple yow nan nga koy xamee. non dama xam ne man du ma contact ak lese man du ma contact ak lese njaaxum du lese booy puy du lese mod séeréel du lese waaw sandrep bu tëngéej du lese ñun ñëpp damay contact ñoom. ne benn mën a benn ku ne ñaar mën ñaar ndax sama jom bëgg ñoom fa nu man ma egg fa man loolu lay wër mhm. waaw. après combat sa combat ak Lo Jot nag ay ma ay ñoom kii mhm. xam nga ay defe ay ñoom Kaaw Gourné mhm. ay ñoom Caat Yarax mais boobu nag est-ce que amoon pression. dañu dañu daje géej. Moussa Ndoye Moussa Ndoye dañu daje géej. mu fekk muy xam nga sama géej li entraînement yi mën koo waaye li may entraînement. dafa metti moom xam na ne booy bi champion la mu ne ko Moussa mu ne maa ma ne ko am ngeen combat am ngeen combat bu rëy Moussa dem ba foofa na ko lozot mu ne ko am ah, mu ne ko am nga combat ndax ki nga am faraloon na benn mel na ne man day bëre waaw moo tax uh, bu nu jàkkaarloo rek bu arbitre ne firi rek damay damay bëgg chaque jour sax ñoom gaa yi ñoo may arrêté waaye damay bëgg arbitre ne firi rek ma dal sa kaw waaw man xaw ma xaar ma xaar non non non non loolu si deret la. waaw ndax Cheikh Mbaba moom bu doon si nijaay si kirtin di sa papa. kooku mooy loolu. voilà kon après ko bëree yéen. bi metti woon na ndax sama gaa yi xeex nañ ci tamit mooy loolu werante nañ ci kaw nañ ci teg nañ ci. combat bi xaw a feebaroo naa ci amoon naa ci benn tànk. amoon naa ci tànk. man ak John Kara am naa ci tànk. waaye yëpp dama ko takk ba mu dëgër gars yi naa est-ce que di nga bëri di ma takk ko ba mu dëgër maa mar ci tànk combat ma nag losot mu dalaat ma bi ma dama ko takk gëm yàlla xam ne yàllaa ma ko teg dama ko takk sagar laa ko takk mel ni teg ci téere yi waaw di ko maska John Kara moo tax yenuwuma ko bi ma galgalee tànk bi tànk bi la galgal moo tax tam yëg métti bi ma ko bëttee gis nga champion boo ko bëtee dina am nu mu nu mu nu mu ne bëritee day tiit mooy tax moo tax démb. Euh, voilà. mais kon bëri dinañ yenn saa nga bett si nit mën a wuy sama ndey loolu leer la. <laughs> lu koy dégg lay wax billaahi. mën na yàlla laa li giñal. kon bëri ñoom fit yenn saa di nga si di nga dal si kaw nit mën a wuy sama ndey gis nga mbëri dañoo mënante. gis nga boo fi jëlee ku la mën. bu ngeen dajee barki Serigne Fallou laal gi bu seen yàpp yaram laalante nga xam ne moo la mën. waaw loolu de am si làmb. ok léegi après ba nga kiiwee nga ne John John Kara sa tànk moo doon métti. léegi moo tax euh, buddiwoo ko. waaw moo tax buddiwuma ko. waaye combat bi dem quatre appels la jeexe euh, maag maag lozot moom. dama ko bët déplacé wu. tànk bi jege ñoo ma dóor ko ca baxal dox ak moom. mais gars yi li ñu jëwee nee nañ yow moo xeex de jàpp rek nga mën mais xeex moom. mënuma xeex. kan nga fi dañ ma ko oyofal. Ah, xam nga li tax xam tax ñu ne mënul xeex. dama daje ku tax xeexkat. ah déedéet mais ndax gars yi nañ sax da nga xaw gis nga man gis nga man. dam moom day moom day wut si may wut si. man xamal la lay ñaan. ma teel a yiwi samay supporters. loolu nag bëgg lu yomb doo xeex tuuti gars non du bëgg lu yomb. du bëgg lu yomb man xol bi ma yor. xolu xol bi ma yor mën mën mënu ma. waaw mënu ma génne deret nit. deret nit moom bëgguma koy génne man. waaw su ma sañoon dama la jàpp rek daan la waaw. est-ce que xanaa ikiri lay lay lay takk gan xeex. Euh. maag booy yi nii mooy loolu xeexu mbedd xeexu mbedd daal mën naa ko xeexu ëmb seen man mën naa ko euh. ba heure bu ma la jàppee nag dinaa la def ni guy gi dinaa la pomp ba nga sonn. Euh. naa la dur dur yi metti mais est-ce que nag tey instant bi ak fi nga toll. Ah. tey xam nga nekkatoo doon n'importe qui macha allah champion nga. di ci nuyuwaat bu baax a baax Thiaw saar mi nga wax. Mm-hmm. ak tonnerre ak koña sama doom. Mm-hmm. xam ak arméa. Ah. Mm-hmm. Ah, ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu parce que dañ leen fekk fii ñëw ñu dalal ñu. ndax ay champion donc ñoo la entouré. mais tey est-ce tey jaru tey. kon gaa yi ni ñuy jëlee di investir seen bopp. Mhm. xam nga di jël ay ñoo xamante ni ñu leen di coacher comme. Mhm. di leen di leen encre di leen entraîner. Mhm. comme comme Adavas ni mu dem dem olympique xam nga. gii di ko entraîner et tout est-ce que tamit loolu mag ngi sa xel. Euh, mu sama xel tamit maa ngi ci am naa ku may coacher salle bi ma nekk sama papa Maxi maa ngi koy di ko wax ne affaire yi jàpp na si moog dijje waa saalu Maxi bépp di leen wax ne jàpp nañ si man dama am coach. coach boo xamante ni borom bopp la Maxi lu mu ma wax rek bu ma demee loolu lay gis waaw ak dijje waaw xoolal ni ma toll gisoo si man gerees ndax dama dama koy liggéey boo ma gisee rek nga xool nga xool xool fi mu ne boo ma gisee démb ak tey nga xam ne man euh, changement ah, am na changement voilà aw ma non aw ma gerees ba léegi aw ma gerees waaw uma gérés ndax dañ koy liggéey si man yenn saa yi damay toog ne damay jël protéine damay jël lii damay jël laa non duma jël dara dynamogène rek laay jël ak biofaar naan mooy loolu ndax fatiguement bi xamoo ni may contacté dafa metti doo jël yooyu yooyu xaw man sama yàq sax du foq pour mu foq problème la sama yaa du foq pour mu soq borom dafa man mu man la dama sàmm. kon yow ma am combat si mii daal futiyoo ba ma set. Euh. caaw waaw commencé massage yooyu daal mën na ko si am. dem dem xam nga fay gars yi la affaire yooyu noonu. non mbër mu ndaw du sonn gis nga mbër mu ndaw mm. bu dajee lu metti bu sangoo coono boobu dafa war a dañ. Mm. mais nga ne du foq. moom jaaxal na ma ndax isin man di soow mi soow mi noonu naan xam naa moo dëgëral yax yi. du foq de. foq waa yii yii daal su may contact moom bu ma laal dina foq. mais yar bi daal foq. waaw waaye maximum damay wax ne maximum aw ma fayam. ñu laaj yooyu dinaa dem hopital dinaa dem hôpital waaye. waaw ma laaj leen ma laaj leen su ma demee laaj leen na leen yaram sama yaram ndax dina du foq daal. waaw. waaw amuñu garab boo xamante ni dina dina ko. waaw waaw di nga leen ko laaj. Mhm. demal ndax loolu daal moo gën a wóor. Mhm. waaw gannaaw bu ñu jugee ci loolu yëpp sa yaram bi yóbbu ko ñu foq ko de ndax baaxul ngay jékki-jékki rek sa yaram bi kii. Mhm. waxuñu la ko. non non waxuñu ma ko. waxuñu la yaram bu foqul du kii. non non waxuñu ma ko. laajte ko nga xool. dinaa ko laajte. gannaaw bu ñu jugee foofu yëpp nga jël nag koo xamante ni moom xanaa amoo adversaire bu mel noonu boo yëmbal mën a bëri ku bëri ku dongaloo bëri gàkku de ah ay ndaanaan jël soixante-douze heures Père bi yow lan moo la dugaloon ci Boy Yeumbeul ak ba nga koy jël lan moo taxoon. Ah, boo yëmbal yàlla xam na ne xaw ma ko woon. yow nag yow Boy ak li fi def yëpp. combat combat moo carrière. mokki mokki xeeru ngor. Ah. laa ko seetaan. mais xam woon Boy Yeumbeul. ma nekk dëkk ba. di bay caw wooma na ma sëwru woo na ma. boo kiiwul sawru bi ma wooyee na ma sa diggante caatu ngéwél taxaw na ma ne ko baax na. waaw wax nga dëgg combat bi caatu ngéwél. woon ma ne ko baax na. caatu ngéwél dem ba ci digg bii ne combat bi arrangé tu ko. gaa yi woo ma fal. ragaloon wala. caat moom xaw ma dama ragal xaw ma ragaluma waaye loolu moom duma ma ci wax ndax mbër la may mbër loolu bu ma tuddee turam rek moom mooy loolu. waaw bi ñu fàllu dama woo na ma takk na ma moor xoolal adversaire boo bëgg ma ne ko fàllu yombalal naa la ko demal xool adversaire boo bëgg boo ma indil mu arrangé ma mu bëre. mu woo boo yëmbal na ko combat bëgg a jox waaye ak Mor Kankang boo yëmbal na ko amul xaar jox ma. caaw woo ma na ma yàgg booy yëmbal booy yi sax bañoon nañu. waaw kooku dafa xawa a tardé si ma ne leen eh, caw na leen. caw na leen caw na leen bàyyi leen bu ñu waxee ngeen naan dafa tardé si làmb. boo yëmbal boo ko daanee. day waaw voilà dina am fu mu lay yóbbu. Uh-huh. waaw tonnerre mi wax leen ko. waaw ma jël ko am na nga xam ne neexul leen woon. ma jël ko rek mais boo yëmbal ëppoo ma ko tur. am na tur te dafa mën bëre. bi nee bëre bi nee bëre nag gàkku. Uh-huh. tonnerre bi mu nee bëre nag gàkku bëre ndongoloo. Uh-huh. waaw bëre xaw ma ñan petit ñaa xaw ma ñan. waaw waaw xaw ma kan kan ak ma ne leen amul problème. waaw waaw ko waxee tamit. ma ne ko acca baax na combat bi ñu jàpp ko ñaari yoon bu ñu demee ba ba war a bëre si weer wi mm, corona bi ñëw sonn naa si lool nag. moom tamit sonn na ci parce que voyage na voyage yu metti ci lool ndax moom. non sonn naa ci. combat bi booy xool dama sacrifice sama bopp. nga sacrifice waaw li ma génne woon li ma yoroon yëpp ñu dencoon lépp dañ koo génne ku am sëriñ la nag. ku am sëriñ la. waaw nu góorgóorlu di ko wax ne nu góorgóorlu. parce que da nga cee feebar du combat bi feebaruma si waaye daj naa si coono yoo xamante ne nii damay laqar ñi. damay laqar ñi rek dama doon laqar ñi. laqar ñi mooy. laqar ñi boo ko déggee mooy di dindi li muy def nii ma koy yàq. def nga yàq. waaw damay def may yàq. ndax boobu sonn naa si lool mënum waaw mënuma ko jeeku fu ma ko wër du ma ko gis. Ah. ah ma gëm yàlla tamit xam ne tamit moom dina ñëw. dëgër li nga ndax. amoo sëriñ boo dem sax affaire yi day xaw a métti ak sarax yi ñu leen génne. waaw boo xoolee nga xam ne sarax moo yor làmb jëpp waaw ku ci saraxul rek ñàkk nga. sarax yi nga génne moo tax nga gañ waaw yàlla sunu borom nee nañu sarax la kay. del saraxe rek. boo xëyee suba. Mhm. balaa boo yeewoo. Mhm. balaa nga def dara war nga saraxe. génn sa waaw génn. Mhm. waaw. léegi après sa ñu gis ni franchement kenn du la woo. indi nga état physique. mën nga nu tudd am nga xadar boo yëmbal tamit kon li nga wax rek de mérité wul parce que indi na moom tamit état de forme hmm. mais état de forme bi hmm. boo yëmbal moo taxoon wala ñeneen dafa am ñeneen ñooy waaj booy xool bis bi moo ko laaj bis bu nu toog ay at di xaar bis boobu tamit booy xool xale ya fa nekkoon yëpp a bari mbooloo hmm. mais yow li man li ma ko waxoon rek moom damaa xas ndax dana ma étranger nga bawal bawal nga da ngaa paas ñëw ma ne ko bawal bawal booy xool ñoo yor magasin yi xoolal fi Ndakaaru Njaay nga xool magasin yi fi gën a riis bawal bawal yee ko yor waaw na ko nag bawal bawal yi dégg ngeen li ma wax tuutal na ma. kon da koo jaxase ak bawal bawal. ah waaw du ma ko jaxase ak bawal bawal yi ñun ñëpp ay bawal bawal la ñu fi fii dëkku ah. fi moom bawal bawal la ndax yaayam mu ngi dëkk altu ndàngal ma kon warta wax loolu. loolu yow ah, moom moo ko wax moo ne yaayam dama ko wax ba yeddaat boppam ndax moo man a sama yaay altu ndàngal ma dëkk ma ne ko kon baax na waaw waaye xam naa ne bu woon yaay ji ba yaayam seetaan loolu noonu bu ko dégloo dina ko ne waroo ko ne wax loolu. Hmm. waaw da ngaa dem man altu ndangal man li ma fa bëree bëree bëri naa fa. Hmm. waaw bëri nañu fa ay côté yooyu boo boo fa boo fa duggee lépp mbappati bëri door la. ñu dugg si combat bi combat bi tey euh, tey bu ko arbitre ñu sifflé nañ ko ah. Hmm. yaa ngi féete gauche mu euh, boo yemal mi ngi féete droit yow yaay ko combat bi. waaw booy xool kenn ku ne daa boot sa cumikaay moom bi niñ bi heure bi di soufflé moom daa daa arrière boot cumikaayam man te na boot samay cumikaay dox liwaatoo xool ko ñëwul ma dox un pas deux pas fekki ko mu arrière ma xam ne man du ma bëreeg moom si saako yi bëgguma bëreeg moom si saako yi ndax ñu ñaar ay mbër lañu kon noonu ñëw si diggee bu bëre. dañu leer na waaw voilà lay bañ voilà ndax booy xool combat bi. benn action la war a jeexee maak moom ku ciy këf sa moroom rek benn action la war a jeexee ndax ñun ñaar ay mbërëntaan lañu. ba pare voilà si laa ko xëcc mu ñëw si digg géew bi jox ko avertissement ma dox wutiwaat ko mu dëggal boppam bi mu dëggalee boppam mu dank mu dank kurfeñam. waaw mu dankee kurfeñam ma xool ko na ko xool ko jàkk mu mbër la mu xool ma jàkk maak moom ñoo ngi njëkkante waaye ku gën a gaaw rek yaa koy yaa yaa yaay féete suuf. si laa ko mébee dama ko méb rek mu gëm rek ma coof ko dama koo coof laalu ma ko sax ndax booy xool waaw booy xool fekk naa fa doole waaye ni ma dala si kawam moo moo metti bi ma dala si kawam dafa fàq ma yéeg ko fàq bi ma dala si kawam comme sax bi ma dala si kawam amatul équilibre waaw après instant boobu lan nga sentir ba nga ci kaw loo sentir ci am fekk naa fa doole waaye dafa am doole joo xamante ni xam nga doole xale doole euh, mag bokkewul. da ngaa yàpp ne boo yëmbal la mag. waaw moom mag. ñëpp la mag. barke Sëñ Fallou moom mag. Ah, moom mag. Hmm. ma dala ci kaw mu xam doole ji xale du benn. Hmm. ma xam ne action bii nii action bi moo koy jeexal baal ma continuer ko. ma daw tënk loxo bee daq ko yéeg ko bi ma ko yéegee wacc ko fa. waaw làmb ji jeex mhm. sa côté mobilisation xam nga yaa ngi koy wax yow bawul nga dëkk. Hmm. mais nan nga fexe tey. ba ba am sa kiw bopp. yow da nga ba am sa sa sa kiiw bopp daal nu mu tudd sa sa kii sa sa sa famille bopp ndax gis nañ da ngay mobiliser carrément te yow nee nga dëkkoo. man ñi ma bëgg daa bari du Rimaaw kese ma bëgg. man daanaka booy xool bawol bawol yëpp ma bëgg ndax su ma duggsee si géew su ma duggsee si làmb dama fay def lu neexal bawol bawol yi te nit ñi seeni bët la ñu xool seen i bët la ñu la yor de boo caaxaanee du ñu ànd ak yow. waaye boo defee dëgg di béggal nit ñi di béggal xale yi yàlla suñu borom dalay may lu bari waaw. nga daan booyee mbër. grand combat bi gis nañ la. nga ne fii. Arafaas la woon ak Tafa Mbër. Arafaas moo daan. Tafa Mbër lañ daan. ñoom ñaar ñi ngi noon ndax yaa xoon grand combat bi ngay xaar. non dégg nga li ba. Mm. nee naa la man sama bët. teguwut si Ada Fass ak Tapha Mbeur Sa Thiès mi nga xamante ne ni doomu Double Less dafa mën a bëre man foofu laa teg sama bët. ok mais xam nga si ñooñu laa teg sama bët. mais xam nga tey boobu nekkee plan A am nga di Sa Thiès moom instant yi du la jël allah ndax li nga wax. non du du question may wax. voilà li nga wax ak sa boy jarul nga ñuy cenc. Ada Fass Mor man du ma ñaar. ku la joxoon avance Ada Fass nga jël ko. <laughs> non loolu des na si waxaat. dama lay wax. mais déedéet instant bi xam nga yow jaru nga ñu ceeñ. waaw yow yaa xool grand combat bi Ada Fass tey Ada Fass eh, Ada Fass tey moo daan te xam naa doo jël ku daanu. Mhm. comprendre nga mhm. ndax li ngeen wax li nga waxoon lu leer ku la seet si woon jox la ak avance su Ada Fass pare nga pour bëre ak moom. waaw ndax man bawol bawol laa waaw man moom wàccu ma fi kenn kun ma jox tey bu fallu bu ma fallu suba nan combat Ada Fass yaak moom seen combat la soxla Ada nangu ma jël ko. mais est tey yow yéen ñaar fi ngeen dëkk. wala so da ngeen a sorante. sorante wu ñu tali moo dox suñu diggante. ok waaw mais loolu hmm. ah, la moom. dafa màgg de. daa màgg. dafa màgg ma waree màgg rek man xam naa liy màggloo gars yi man su ma waree màgg damay màgg. mais gis waa ñun ñun moom ni gis nii rëy jaaxluñu de. barke borom Touba rëy moom jaaxaluñu ñun loolu yëngal kon da ngaa xam yoon yoon bu baax. waaye yoon bi su ma bëggee rëy damay rëy. ni gars yi. mais réellement joxoon avance Ada Fass nii sans blague nii ak ñoom kooña nañ la kiiwee nga jël ko. waaw lu tax du ma ko jël loolu moom dañuy wax damay wax de man dinaa ko jël lu tax du ma ko jël waaw damay dem liggéey dam man man damay liggéey man bawal ba bawal laa jógee mbëri bawal rek laa fi bàyyi. mbëri bawal yi kese laa fi bàyyi. waaw waaye ñi ci des ñëpp damay bëri ñoom waaw. Liss Ndiago. non Liss moom du ma moromam. Liss moom du ma moromam parce que dëgg ñi du ma moromam. Liss Ndiago doon defee grand combat moom tamit bu ko neexee na tëgg waaw ñooñu am na droit waaye man moom du ma moromam. indi dama la bëgga a xamal ni ki def six combats. ak ki def neuf combats boo koy wul. nañu nañu waaw nañu waxante dëgg. nañu waxante dëgg man dama la bëgg a xamal ne bis boo déggee ne Mor am na ñaari bolok yu ko jëndal jàppal ne paa yi dëkk ba sax dinañ ñëw maa la wax loolu. waaw waaye nag Mor amul ku ko jox xam nga ñan ñoom ñan la yaakaar ñi nga xam ne ñoo ko jox seen téeméer ak seen i cent franc seen i mille franc ñooñu la yaakaar. waaw dëgg moom liis moom bëgguma ko moom. du ma ne sax bañuma ko nag. bañuma ko loolu maa ngi ciy jéglu wér bañu ma bañu ko waaye. lam mën ma boole ci kanam waaye du instant yi moom du maak moom. mais Ada na leen. waaw dëgg la. Ada Fass dix combats neuf combats la def problème man moom amaguma defet. waaw. kon lam boole na lam. Ah, waaw lam booy xool Sa Thiès neuf defet la def. waaw yii dem ñaanaloo defet la def. am ci de bi mu bi mu amee neuf combats. si la amee defet. waaw booy xool champion yëpp yi fi gën yëpp. Balla Gaye bi muy am huit combats xaw ma neuf combats si la amee defet. waaw waaye man dama am neuf combats di ko sant yàlla sunu borom bu baax nag waaw loolu loolu dëgg la loolu dëgg la waaye man moom dama ko sant yàlla bu baax ndax mënuma amuma waaw nag yàlla mi nga xamante ni moo mën waaw yàlla na ma yàlla di ko gën di lier rek ndax ñi ma yor balaa may bëri sax ñuy ñuy daanu waaw mooy loolu xam naa ne bis moor moom xam naa ne ñaanu ko yàlla bis bu daanoo waaw boobu moom xam naa ne moom moom boobu moom xam naa ne bu ñu yeboo dem gasi dem morgue ba rek dem jéem a gasi ba bàq yu bëree bare ah moo gën. damaa xam ne saa yi li ma gis. non li ma gis ñoom sama man ñi ma yor. Ah. xamuñu daanu de. daan rek. Ah, buñ daan nga ne ma ma nga ne bisu daanu. bisu ma daanoo waaye lii wu ma leen waaye xam naa jour booba. sur moom dina bëri bàmmeel yi moom dina bëri palaas barke borom Touba. bàmmeel yi dina bëri. billaahi. ndax la ñëppay dem. ah moo ngi noonu de. Ah. daa des sax ndax euh, am na ñu ma mere sax ndax dañ ñëpp dañ ne moor moo moo indi fii kaar yi te kaar ngi lay nuyu fay naa kontaan na ci yow bu baax a baax. fay naa ko fay naa ko bu baax. Fallou El fay naa ko Fallou El naa ko. di leen wax ne ñoom dégg gis naa seen i ñaan tamit yàlla na yàlla sunu borom bi daal gën fee bàyyi. waaw ñëpp di leen wax ne moor moom mooy loolu seen moor la mënul nag. mooy loolu waa no moo dafa dafa dafa répété woon fecc moo xamante ni fecc mu garaaw la. xam nga waa CNG dañuy yàq euh, mooy la di yàq laam. da ngay jékki-jékki xam nga ne spécial war nga ko mën a may ay ndën mu ñëw. waaw waaw nga jël seen dën seen dëndi bopp. waaw ñu ñëw waaye xam naa ne démb bu ma andi sama dëndi bopp rek. no yemu maak foofu kenn. yee feccal kalamale. gidda batacax gidda ba gidda batacax. waaw loolu dafa leer lool si déggin ba am nga gel. man ah, am de. am naa gel bu ndaw. waaw man du ma la fen. waaw am naa gel de am naa gel de moom du ma de. Ah, bëgg waaw bëgg naa ko trop. nekk. waaw su ma moom su ma sañoon. su ma moom mooy de sama jabar. Ah. waaw. pare ko naa ko pare naa ko. instant yii nag waaye nag waa staff bi mayaguñ ma ko. fii ñaata at. fii ñaata at. non bareetut. mais benn rek nga am. benn laa am. boo ma gisee nga xam ne benn laa am. fii ah? fi mu nekk moom. exactement mënu ma la fi mu nekk. Ah. waaw. mais xale yi la topp nag kon xale yu jigéen yi. moom moom xam nga rek. ku am bës la nii bañ a gis. tam yàlla baax na sax man aw ma bës. mais ku xewul na. nii bañ a gis. Ah. waaye nag man. ni gis nii. ki may bëgg bëgg naa ko ba pare. piis la xam nga affaire yooyu noonu ñëw xam nga rek. Hmm? def yenn saa yi yenn saa boo nekkee nante dëgg nii xale bu jigéen dina am nu ma la xoolee da xam ne kii mooy loolu. Hmm. waaw am na yëg-yëg si yow. Ah. yëg-yëg doo force doomu aadama. si xool la sax mbëggeel. waaw après bu ñu la ko wanee yow yaay yaay xam sa tànk fi nga koy teg rek. Hmm. waaw boo xamee li nga bëgg dëgg yaa xam fi tànk fi nga koy teg. lan lan nga ci mës a dund comme benn xale bu jigéen mës na laa piégé wala mu ñëw na dama laa bëgg ngeen ko bëgg <laughs> mësoo cee dund lool. waa dund naa ko de dund naa ko de naa ko ah. oh, oh dund ah. ki ma gënoon a bëgg sama àdduna ah. waaw dama jékki-jékki rek mu bàyyi ma nit ñi jaxase ma ak moom. billaay. mu bàyyi ma ba léegi damaa metti nag. bàyyi la. ak ma ah damaa xam nee man nee ñu mbër dof la. maanaam dof laa ku may bëgg moom da may bëgg si doy sama dof gi ma dof. léegi kooku ba mu la bàyyee dama sant yàlla. sant yàlla bu baax. non jooyu ma. jooyu moom xam na moom bu seetaanee lii xam na xam na ne ba léegi man fi ma toll si moom xam na. Ah, sa fi ma toll si moom. Ah. cër la loolu cër la. man moom loolu cër la. non moom du ma mere. cër la kooku man ak moom. Ah. man moom cër la. du mbëggeel mbëggeel léegi saxatu fa de man moom cër la. kay jël na place am. waaw kay jël na place am. ay daa gëm de looy tàggatoo. Ah. franchement nag ah. ma ah. apprécier. Mhm. wax naa la ko sànq. man yëmbal laa dëkk. Mhm. boo yëmbal ñoo bokk koñ. su jooyee ma jooy su kontaanee ma kontaan. Mhm. mais di demee tool benn moment boo xam te ni amatoo droit far. ñu fu nekk sumay frère lañ. sumay xarit lañ ndax ñun ñëpp. ñoo yam même pied d'égalité mhm. mais nag moo yëmbal nag laa faral mais nag lu ñu naan dërëm bi génnul gaal gi parce que ñun ñëpp ñoo kii mhm. ñoo ñoo far mhm. mais en tout cas ku estimé la ndax am nga la am nga fayda te xam nga loo bëgg te mbër mbër mu jox cër sa bopp nga man moo tax ndax su ma gisee jàmbaar rek dama koy bëgg mais nag di la wax nag sa yoon lépp loo jëm rek yàlla na leer ci barke Seydina Mouhamed mu bañ a am benn gàkk-gàkk franchement nag mbër nga te jar ngaa jàppale waaw loolu dëgg la loolu dëgg la ndax euh, li nga ma wax nii moom la ñu bari tey wax waaw boo yëmbal nga faraloon loolu moom xam naa ko bu yàgg waaye nag loolu du ma ci ñaaw ak yow du ma ci léegi yow ndax jigéen nga fu la neex ngay far. ñoo dëkk sax bàyyi ma njoon a ngi nii rakkam faraloon nu mu. loo xam tey amu droit far mais tey boo yëmbal maa moom ñoo dëkk. tey su ma ñëwoon ne la yow laa faral danga may ragal. dëgg la loolu dëgg la ndax kër gii nga nekk nii tey am na ñoo xam ne faral nañ si boo yëmbal affaire yi fépp la. Ah. affaire bi moom li gis nii nañ ko dund fair play rek waaw yaa ma gën a xam waaw waaye nag damay sant waa Rimao ak juróom-ñaari njiifun paal yëpp li tënd li dalee Touba Mbacké dalee Joal Fadiouth Djilass Touba Toul Néewraan bàyyiwuma Njoon ngangu ne përgin bàyyiwuma piram dëgg waaw di sant daal waa Thiès ñëpp daal fépp daal foo xamante ni Mor am na fa supporter maa ngi lay sant di sant euh, waa Sandaga waa Patriciane waa service démonu yaraax maa ngi leen di sant mafia boobu di sant waa mafia mère Binta fay maa ngi leen di sant bu baax waaw maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax di sant Baye Baye Jili ndaa maa ngi koy sant Baye jiili Baye Jili ñoom ñëpp maa ngi leen di sant Baye Jili mii Tarkinda sama Tarkinda la baay jiili man Kolobaan sama Tarkinda la waaw sama bos la maa ngi koy sant bu baax waaw yow di la sant. di sant sama waa ji. ndax moom dafa am rakku dafa am rakku mbër. rakku mbër la am yàlla na ko yàlla sunu borom bi gën a yóbbu sa kaw. ndax mbër mu am fula la waaw mu am fula waaw di sant mafiya mafia TMAX bi maa ngi leen di sant waa benn tali bi maa ngi leen di sant waa pompier mafia pompier bi maa ngi leen di sant su mel ne ñoom maam maam Jibi ñoom Ngaka ñoom ah, Moussa Ndiame ñoom mbay Diouf Seynou Faye ñu Baye Mag ñoom Allah waaw lay ndaw Sall Ndama ñoom ñëpp maa ngi leen di sant arme xaadim dafa mbër Baye Mag ñagas kooku sama rak la kooku maa ko yar waaw koña deux tonnerre maa ngi koy sant Thiaw moom su ma nee sant su ma nee bañ koo sant kooku moom si kër gi la bokk waa daa bokk si man di sant Balla Diagne ak waaw Balla damay wax ne kooku fi mu nekk jooyuma papa bu waaw jooyuma papa jooyuma kenn waaw dama xam ne moom mat na ma papa mat na ma tamit mag gi ma bokkal ndey ak ndax li may defal mag gi ma bokkal ndey ak duma ko defal bu gëm naa ne bu amoon un milliard gëm naa ne su ma amee combat mu def ko si maa ngi koy sant bu baax di sant di sant euh, jabaram mami maa ngi koy sant di sant taa màggat sunu yaay bu baax bi nga xamante ne nii bañu dara xoolal néegam la ñuy neex lu ñu neex def di sant ñaaña waa kër gi maa ngi sant Fat moo di ta Aida Fallou di ko wax ne na jàpp affaire yi noonu la na jàpp bu baax a baax na xam ne moom champion la yor te bëgg naa fa champion yi ne di fay ay millions bëgg naa fa egg. waaw bu loolu yóbbante la. Fallou sama papa sama lépp di sant jéey sama nijaay kooku mën ak moom làmb taxut sama nijaay di sant Abdou Sène jarbaatam maa ngi koy sant bu baax di sant mafia Abdou Sène bépp maa ngi leen di sant. waaw waa Pikine non li may jeexale kooku ku doon liggéey ñëw na borom yoon wi xaw ma borom lan bi borom tool dikk na gi dëg raj dat gi jëjar ki jar cër ci jar rad waaw kooku dafa leer kooku yow mooy loolu bon sens waaw kalama léegi kooku waaw kalama léegi ah, ah, kooku lañ ci defoon mooy loolu waaw dis waaw sama ñetti coupe yi nag xool dama si am fierté dama si am fierté bu baax ndax euh, fecc bi maa ko jël jël meilleur supporter bi waaw jël sama drapeau jël sama meilleur xaw ma nu ñu ko waxee noonu. waaw diplôme de de xaw ma nan la. Ah, waaw yooyu waaw lépp maa ko jël. waaw di wax ne yàlla nu si yàlla suñu borom gën a jàppale rek. waaw ndax moom nu am di sant Tonnerre 2 nag gaa yi nañu wax si moom ak armée waaw gaa yi nañu wax si moom ñoom ñaar nañu wax si moom Tonnerre 2 moom. damay wax na sax garaawul waaye nañ ko jox mbër yi fi ne waaw nañ ko jox Ziza ah wala ñu jox ko kii ki daan ndongolo ki daan euh, Ada Fass onde le fou ñooñu ay combat la nañu bàyyi nañu bàyyi li ñuy wax buñ leen buñ leen seet see ñu naan di laaj xaalis bu bari te duñ fi indi mbooloo Tonnerre 2 gis nga promoteur yi nañu wax ak Tonnerre 2 Tonnerre 2 waa Colobane baana topp waa Colobane ko topp waa Bawal mm-hmm. li may moo ko topp moom raw na sax waaye dama la bëgg a xamal ne kii daal moo ngi fi bàyyiwu fi kenn waaw na promoteur yi Fallou dama bëgg Tonnerre 2 tëgal ko grand combat boo ko tëgalee Tonnerre 2 boo ko tëgalee grand combat spécial bi nga jox ma ko ma bëreel ko ko incha allah waaw loolu waa pare naa waaw loolu jeex na man foofu la mën a yem pare naa mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee